waaye ngeen di xool ci man ngeen xool ci fi mu dugg ak li mu ak lu tax mu dugg fi ak ku ko jàppale ku dul yàlla ak Cheikh Ahmadou Bamba ak liggéeyu ndeyam élage ñàkku te du ñàkk te du ñàkk ba kenn du ko yërëm te kenn du ko yërëm voilà doy na guy guy sax seddul sax ndànk guy la sax sa El Hadji wax naa ci moom ba pare sànq mënuma ci waxaat lu raw li ma waxoon mais seulement bi yoon bu may wax nii damay wax ci samay sama doom ak sama rakk ak samay mbokk puisque euh, euh, Mouhamed Lamine Diallo IJ bi nekk présidence sama dooma moo ko ñaan si woon ànd ak médiance yi sama rakk kon bu ma ñëwee ba fii war naa leen gërëm am nañu gërëm samay rakk lañu sama rekk ak sama doom te fu ma leen yebal ñu dem kii sama doom la Malla Diallo magu élage la ñi ci suuf sama doom lañu te nag dañu xaw am tuuti naqar rek ci benn dese bu ñu am Saint-Louis moo tax mu meleen ni waaye eh, yàlla nañu yàlla may leneen ba ñu mën ko teew maa ngi gërëm nag samay euh, sama doom Mouhamed Lamine di gërëm sama rakk Pape Jean Sey di leen ñaanal yàlla ni ñu ñaan seen yi yàlla nañ ko tuddee ndey aal na gërëm naa ko voilà. ñu gis la ngay feccal ndaw si xanaa da ngeen am benn relation yow ki nga xam ne mooy maman. man Ndeye Aly tey ñun Ndeye Aly la ñuy wax bi mu ñëwee El Hadj présenté ma ko ba tey jii du ay weer de ay at laay wax mais toujours la même chose toujours la même figure toujours la même Ndeye Aly sama xarit balay dana ma woo ba trois heures du matin Ndeye Aly dana wax ak man dana waxtaan ak man kon nag tey ak tekk boo ko defee rek tekk yóbbu la place am yàlla na ko yàlla jàppale ak sëyam El Hadj nag mënuma wax ci moom dara kooku moom sama rakk la sama. affection boobu c'est parce que man samay doom dama leen di jur def leen ay moroom El Hadj bañ naka ba sama rakk la du ma wax yaay man mësu man aw doom nii ñëpp njuufa lañ may wax man aw doom. taawloogu ma puisque man sama yaay la ñuy wax yaay donc El Hadj sama rakk di sama rakk bu baax nag ñëpp baax ci man waaye rawan na ci El Hadj El Hadj ma laaj ko Hadj nugul ma ko bëgg dara El bu dee nit day doylu rek dama war doylu oto bu ne dawal naa ko kër gi ma teg na ma place boo xam ne ñëwuma kenn woolu ma lu kenn am sama bos boobu doylu yàlla na ko yàlla suturaal ak Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi ñaan yàlla ñu boot ci nag sëñ Touba ñu tawloo ko yàlla na nekk triplé sax du dëgg triplé waaw. affection boobu ngeen am ak seen relation moo waral El Hadj Diouf tey ah El Hadj Diouf euh, muy wéer sama sant du fi loolu mooy géej gi am na ndox du fi ñàkk du fi jeex am na fi waaye man rëccuuma lu sama doom amee sama sant voilà. mais taxul dafa jàpp ci équipe nationale bi nañ ci équipe nationale pour jàppale lan la. équipe nationale bi nga xamante ne dañ koy gis mu ànd ak Lions yi. c'est ça El Hadj euh, jàngul football daf ko doon deretam la c'est son sang son son père fii footballeur. international donc El nii la mën a mel ci football du bàyyi alkaati du bàyyi dóor et puis national nationale daf ciy jàpp ndaxte nag ñoo ci nekkoon ñoo xàll yoon wi xëy na coupe bi teguwul woon seen loxo waaye xal nañ ko te bi bi muy tegu seen loxo itam El yi ngi taxaw kon nag dañuy ñaan yàlla rek coupe monde bi yàlla defal ñu ci lu baax ay actualité la faw faw nga laal ci en tant que yaay tey ñu gis li nga xam ne moo dal soxna Astou fële ca Louga mu ñàkk bakkanam ci négligence médicale en tant que yaay nan nga dundee loolu. lu métti dama ci jooy parce que El Hadj papaam Louga la dëkk dama ci jooy ndax jigéen laa dama ci jooy ndax yaay laa waaye man ba tey sax soxna Astou ma gën ndaxte man bala may dee danaa leen def loo xam ne dootu leen ko nekk ma toog di wësal woo sage femme mu naan ma xaaral ak dem jamais duma ko xaar la dóor ba bu may dee damay yóbbaale dóor yi jamais man duma xaar loolu puisque je suis pas illettrée quand même jàng naa xam naa lu xew kenn duma mettital les hôpitaux marchent comme il le faut voilà merci baal leen ma yow bàyyi ma. MPROD TV ñu ngi fii nag.